bu soobee borom bi dinañu dund tey def nangam ak nangam waaye fi mu nekk naagu ngeen bay damu te damoo noonu baaxul kon nag ku xam def lu baax te defoo ko bàkkaar nga